ko taxoon a dem ci géej gi lam gisoon muy cër yu mag yi nga xam ne dafa doon a lu am mu séen ko te ku ko mës a bëgg ku ne boo ci àggee bu ñu la ko wanee yàlla rekk sa ngëm wala nga dem ba ci biir doomaa demat waaye Serigne Touba ci waajal googu suñu boroom waajal moo tax yàlla nam ko ko nam ko waxe woon rek ca ësal la ko suñu borom waxante woon moom ba àpp ba jotee mu jug dëgmal bàyyi njëndi bàyyi kër yi bàyyi njaboot bi dem digg ma dëgg ma liggéey rasulullahi sallallahu alayhi daj fa lu métte métte métte ndax lu ëpp samaaniya xijajin illaa xaliran mu ne ko ca tukki ba kenn wétliku fa ñu néew ko fekk sëriñ gaawan ak sëñ Modou Lo Dagana ak ñu néew ñoo ko fekk foofu kon te ku ci mas accès dalay yeeyuwaat la ci gën a yéeme moom xamoon na fi mu jëm ndax lettre bu mas a bind ak Cheikh Ibrahima day mel ne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 njaareem fa la Sëriñ Tuubaa mbiram yépp di yëkkati ko bu mel ne jant ba faw kon njaareem googee nag lii ñuy bëgg waxtaan tey fa la xewe fa Sëriñ Tuubaa xëye bis ndax nattu bii kat di màggal Tuubaa da daa def fu muy bëgg agsi nattu bu ñu ko teg bu demee ba waxtu wa agsi lu ñu ko mas a teg ci natt dañ koy fuuraat doon sol noonu ñu tegaat ko sëriñ bi te du ci am dara lu weesu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 kon baatu màggat ci sëriñ bi li njëkk bàyyi ko daa di ca teg kàddoom yi teddee ne néew ma moo gën tëbëski waaye mu yéen de moo gën tabaski jiyeen kon bis mooy suñu lépp kon bu agsee lépp lu ab bi man ci xelam ci xalaatam ci pëstifam ci yéenam ci jëfam woon naa jël lépp jëmale ko ci bis bi moo tax keroog ba ñuy def ndaje ma ci njaarim waxoon naa leen neneen sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance loolu nag la tax mu wax ko moo tax ñu jot suñu bopp ndax bu ko jot bu bu màggal Tuubaa amutoon kat sëriñ bi dem liggéeyal boromam kon nagéene ba ba nagéene ñu ngi ci loxo Tuubaa bi kon loolu war na koy fàttaliku bu baax sëriñ Saliou Mbacke daan wax ne bis bi sëriñ tubaa nee na ñaar buñ ñu dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk màggal waxtu wu ne kee di seen la ko kee la ko kaja des sëriñ Abdou Khadre Mbacke nee na Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke moo ko waxoon ne ko sa baay de nee na ma àjjana amuti bis waaye suñ borom ca kàttanam ak xerañam bis ba màggal Tuubaa da agsi ci àdduna bu ñu ba ëllëg ci àjjana kenn ku ci ne sa kër bis ba daa màggal Tuubaa gi daa agsi bu ñu agsee kenn ku ne da ngay xéewal yokk ci yow kon màggal gi kenn lambutoo ko ndigalu Sëriñ Tuubaa lu mu santaan lu wér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 walisaana alarabi wa manaafica dunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa baarik ala sayidina mawlaana Muhammad wa alihi wa sahbihi yaa man haasihi alqasidata ahaba ilayka min kulli mawzunin qablaha baatub al arnab dugg ci mooy al bi raa gi di redan noonu gi baa gi barakatu kon Sëriñ Tuubaa lépp mu ay mbóot la mm-hmm. kon noonu la ko wéyale ba 1927 mu yibbi si Tuubaa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 wóoyee daal liggéey ba na ko kilifa bi daa defe ba ñu fi bàyyi ko itam ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëw wóoyee daal liggéey bi ak ndigal la na ko kilifa bi daa defe ba bàyyi ko fi yàlla def nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mii fi nekkee Sëriñ Tuubaa tey ñëw wuutu leen ca liggéey ba te kàddu yama yëkkati démb moom ko wax nee yaar rek ma fi bàyyi mooy wattu ak sàmm wattu li fi Sëriñ Tuubaa def ak sàmm li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ak li fi ay kilifaam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 ndax sëriñ bi kat dafa xëy ci njaareem bis dajale taalib yëpp xam wax xamal leen di leen suñ borom de xamal na ma ne jàngoro ji mu fi wàccoon bis nekk jël bis nekk tey jëlee ni ko fi ay fan rek mu daal tàggoo te xam ngeen ne ci biir yëf ya am na bis tubaab bi ñëw boobu peste bi metti na lool te xam ngeen peste moo gën a gaaw gën a garaaw jàngoro ji xew ci àdduna si ren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 Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk yaa nekkal fi suñu Tuubaa boo xesee gëm ne am na digle ci lam ca war a wax kenn du warta jéem a lijjanti jàngoro ji amul loolu weddi waxe sëñ bi la te loolu kon war nañoo xoolaat suñu taalib wala suñu murit ndax ak taalib bi kat du xool la jub ci xelam mu du ko tànnal sëñ bi wala mu jàpp na sëñ bi nii la war a demee ndax loolu rasu alxuraan sax wartandikoo nañ ci wartandikoo nañ ko ci alxuraan wa minhum allasina yusuuna nabi aw yaquluuna huwa uzunun ñiy wax ne yonente benn nopp la mooy lii xew rek luy bëgg am ñu jàpp ne sëñ bi dañ ko ko wax lool dañ ko def loo sëriñ bi xam-xamam ak xamam àdduna ak responsabilité bu fekkee dem na ba nit ñi dañ koy influencé kon jërtuñ ñu topp suñu Tuubaa ndax kon suñu yaakaar dañ koy weddiwaat te yëguñ ko ndax uh, ab taalibe ci kenn ab sëriñam dafa mel ne dafa war a mel ne kal may jiti bay na yéen xaasil yi uh, ab néew. ci koy sang du ko laaj foo muy foo muy jëme Sëriñ Tuubaa wax na ko te Sëriñ wax na ne ma maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci li tax murit saadix ak muritam wér mooy lu ko ab sëriñam digal wërta tànnal boppam ba xam li jub na cim xelam wala jub jubu cim xelam te alxuraan waxoon na ko ci saxaaba yi seen digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy buñ tànnal seen bopp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 lu ci waay man ci jënd ay maska def ko àddee Sëriñ Tuubaa joxe ko ngir jàppale ko ñi ko seen yoon ñi nga xam ne seen kattan ak agguja neegam natt nañ boo wax ne màggal gi daaw lu mat juróomi million ñi daje na fi sëriñ bi nee na bu néewee ba néew bëgg na taalibee dajal lu mat juróomi million maska tasaare ko am na sax ñu ko tàmbali ñu tàmbali di ko joxe xam naa dinaa ci dellusiwaat am na ay kilifa yoo xam ne jënd nañ ci xaat ba tàmbali ko dajale dinaa ci ñëwaat bu may may bu may lim waaye kon sëriñ bi nee na mi ngi koy digal taalibe yépp ñu góor góorlu ci eh, dajale ko jébbal ko ko am na commission bu koy dajale ko mën a yóbbu ci kër sëriñ bi nga yóbbu ko fa bu dul loolu itam eh, jox naa ndigal sëriñ Ousmane ñu def taxawal benn commission bu yaatu boo xam ne dañ ko yaatal ci dëkk bi buñ ko dajale yóbbu ko ba ci sëñ bi nu mu ko santaanee ñu war ko tasaare ci nit ñi def ko kon loolu itam ñu ngi ci soññi bokk teel bi yëpp di eh, gërëm ñëpp nag bëgg ñëpp gën a bàyyi xel waxtu fi mu toll ci biir lool itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi ndax li jiitu ci ñun ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Tuubaa moom bu ci suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu ci suñu bakkan doon des te sëriñ bi foofu la nekk. ba suñu suñu bakkan doon des itam ndax saxaaba yi kat seen alal amwaalahum wa anfusahum bi anna lahum janna anfusahum wa amwaalahum bi anna istara minal mu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum janna seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu Sëriñ Tuubaa dara gën koo foor ci kon bu suñu bakkan doon desi jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëgg la ci ñun man de ndigalu Sëriñ Tuubaa lii lépp lu nar a dox sama digg moom yàlla yóbbu sama bakkan te xam naa ne li ëpp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor na wóor nañu ne ku ko defee Pastef te dara ñu gisal nekku ca Sëriñ Tuubaa dana la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te te te sëñ bi bëggee ko noonu it booy faat di tàbbee jana kon nag loolu bu ci kenn am tiitaange te xam ne Sëriñ Tuubaa Sëriñ Suwaybu bu daana nettali am na ko ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ngeen fonk doktoor lool te ma gis Serigne Touba fonk doon docteur Serigne bi ne ko waaw Serigne bi de daraa jàkkaarloo jàngoro na ko jàngoro bàyyi diw waaw comme nag loolu moom kenn ëggu ca daraja jooju ñun nañuy fexe ba jël suñ lépp jëbal ko Serigne Touba tey tey tey tey tey wax ak yi Serigne Touba nit ñëw na wér di siyaare si ko jàmbat ku wér di Serigne Touba jël loxoom teg ko ci boppam ne ko fokk.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 ba damaa jeexal ak Seex Mouhamadou Mountakha yóbbante na ma ak cant ci mboolem ñu bokkal Serigne Touba bokk yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom ñëpp kenn ku ci ne war sa diggal moom ci ak fonk ak ko yëg jàpp ak yéene ko jataay ak lépp lu nekk ko ñoom kenn ku ci ne def nga ko kon sëriñ bi nee ci li weesu lépp ak li egsiwut mi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaane ci barkeb Serigne Touba. mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp jëm moo tax kenn ku ci na taxaw la te nga day ci ngërëm di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi ñoo njëkk a topp Serigne Cheikh Serigne Touba yi Serigne bi nee mi ngi leen sant di leen gërëm bu baax ndax kenn ku ci nekkat taxawaay ba sa maam ju tedd ja taxawoon ci Serigne Touba ndax ñoom kat bay ñëw ci sëñ bi rawat na ña njëkk ñëw dañoo jaayante woon rek ngir ëllëg. waa jàpp ñoo ne sax dari àdduna nekk fekk daan leen ci fekk bokk ci ne sëriñ bi gërëm la toftal la mbooloo àdduna ci sa diiru sa dund ak diiru sa dund njaboot kon ñooñ ñooñe itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ndax la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek daa wax ne bu ñu wax yoon yi mooy seexi sëriñ Tuubaa yi bu tolloo sëriñ Tuubaa akum njabootam la jox kon sëriñ bi nee na ngi leen sant yéen itam di leen gërëm di leen ñaanal gis na positif yi ci li weesu lépp ni ngeen ci doxee digg moom kenn ku ci ne li ngay jëf sa digg moom wóor nu ko ne bu fi sama am nekkoon jëf ji du ko weesu kenn ku ci ne xam na ne boo doon jëfal Sëriñ itam doo ko weesu kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen tax di jëf mu ngi leen di ñaanal ci dara jàmm kenn ku ci ne mu gàtt na ci sa jëf dafay la ca lu ko si ñor di gërëm nag mboolem taalibe Sëriñ tuwaay yëpp bayut kenn di gërëm it lenn ci daayira yi nga xam ne kenn ku ci ne sa taxawaay ci yoon wi daayir yëpp lu gërëm la ndax xam ngeen ne at mi diiru at mépp muy ci biir réew mi di ci bitim réew fenn fu ci ne at mu jot ña ngay daje te daayira Serigne Touba di ko indi di ko indi Serigne bi waxtu ne léeg sax mu dem ba ëpp téeméer daayira par bis kon ñoom seen positif kenn mënta natt fa mu yem ak ñi nga xam ne ñoo indi teel toolee àllarba yi ñooy ñëpp kenn ku ci ne nañ ko daal defee fay dara soppiku ci di gërëm nag daayira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 te xam na ne jubaay Sëriñ Tuubaa kenn du fi ñëw loolu di la fi toppee waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom di gërëm itam raw du Rayaahiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ba ci université bi ñoom du ko sëriñ bi teg ci seen loxo ñoom itam ba bañ jotee ndigal li ba nëgg ni ci jamonoy sëriñ yu Mbacke ba nëgg ni ñu ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu rafet boo xam ne at mu jot lu ñu jëfoon danañ ko yokk sëriñ bi neen mi ngi leen sant bu baax ci ni ñuy jàllale li nga xam ne mooy njàngaleem sëriñ tubaa ba ñi nga xam ne xamuñ xamuñu woon sëriñ bi di ci gën a gindiku di gërëm itam waa daayira Tuubaa ci kanam ñoom itam seen pëstéef ak seen taxawaay adduna sépp xam nañ ko ndax waxuma la ci màggal bi waaye diiru at mépp lépp lu sëriñ bi yëkkati rek ànd na ko ñoom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 ndax bañ tàmbalee màggal bi ba na gën ñoom itam ñu ngi koy ànd ak ñun te mosuñ cee toqi mosuñ cee dàcc di gërëm itam daayira bi nga xam ne moo ëmb doom doomi cheikh nga xam ne at mu jot bu premier safar bi tàmbalee ba ñu àgg ci bis ba lépp liggéey bi dañ koy ànd ak ñun ci na mu gën a rafet na mu gën a baax di ko defee positif di gërëm itam waa comité organisation bi nga xam ne yàlla def na mu nekk ci seen kanam te sëriñ Ousmane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 te at mu jot ñoo daa taxawu euh, ñi nga xam ñoo jàng alxuraan xasida ñoo itam seen postéef ak seen taxawaay ñëpp xam nañ ko mboolem ku ma fàtte itam nga xam ne kenn jëfut ngir ñu sant la da ngay jëf ngir seeral sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mi ñu seeral nag am na am am ñëw bor dafa am ak pay kon kon sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm itam waa média bi nga xam ne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 li ñuy jëf di ko jëfal sëriñ bi yàlla nañ ca dajeeg payu sëriñ Tuubaa di gërëm itam nag waa nguuru Sénégal ci njiitalu président Macky Sall ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma ne naa ko jottali nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla da ko boole moom lu yàgg njëkk muy nekk jataayu sëriñ Tuubaa moom ci moom yaakaar lool nee bi jataayu sëriñ Tuubaa bi ak itam.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 ba ca des làmp yi nga xam ne Sénégal gépp lañ ko doon def waaye sedd nañ ci Touba lu ci seddu benn dëkk loolu moom itam ñaari milliards yu tegal dugg na fii ci biir dëkk bi ba ca dolli ko waat itam mooy fi nga xam ne fa la ñuy defaree mbalit bi ndax xam ngeen ne mbalit sono na dëkk bi loolu foofu itam def nañ fa lu wat juróom-ñaari milliards ak yeneen liggéey yoo xam ne eh, xëy na sama xel teewloo ko fi mu toll nii waaye boo ci boolee assainissement bi bëgg dikkaat mi ngi tellu ci boobu 23 milliards ak étude bi nga xam ne ci weeru septembre bii lañ ko war a tàmbali ngir xool résu bi ak li koy defaraat xool liñ ci war a waat lépp ak fexe ba ndox mu neex bi ñëw Tuubaa euh, cabinet ba ko ba ko war a defar gagné na marché bu war ko tàmbali septembre bi loolu itam liggéey bu rëy la boo xam ne itteeloon na sëñ bi ndax sëñ bi damaa waxoon ne ma xamalal ma ko ne ko ci bi. bu toon moom day somb bu rëy waaye kon ci ndox mi sama yitte ci laa koy jëme lool itam ba mu ko yëgee def na ci yitte ak yeneen yi nga xam ne teewlu ko waaye lool rek mën naa ko ci tudd ngir sant ko bu baax ci ni ko Serigne Cheikh Mamadou Mountakha santaane di ko ñaan Serigne Touba mi nga xam ne lu ñu def ci jëkk bi rek moo tax yàlla na ko ci fay lu koy njortoon di jeexale rek ci loo xam ne ñëpp ci war a jàngate ngir mu dolliwaat suñ.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 Cheikh Ibra ne ko nit de boo ku weer di boo koy seet da koy jox lu mu yóbbu ndax da nga ko joxub yóbbu ne ko seetale ma ko lii ana alalu la sëñ Bàmba jox nga seete ma ko mu ne ko moom du joxuma dara waaye nas tuuti rek eh, bi suñ mortaal faal waxee moom bay jub di tàggoo Cheikh jub di ko gunge daay tàggoog wér digga tàggoog wér digga ba mel ne dara mosu ko jot mboolem lu newoon coom ci kàttan ak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 màggal bi bu ñu koy wax mooy bis ba ndax loolu la ndigalu Sëriñ Tuubaa kon ñi nga xamante taalibe yëpp na liñ daa dajale di ko def ci safari yaat yi nañ dajale lépp ñëw ko ci dàbbal ko ñu Sëriñ Tuubaa bi loolu mooy ndigalu sëriñ ndax lu baax lu mu baax baax kat eh, nga am ci ndigal mooy li ci solo kon ab sart la ci li ngay def amal na jaay mooy ndigal la kon lañ ci daa def ci ñoom nañ bàyyi xel ci di ci sensibiliser nit ñi ci waxtu wi ngir ñu xam fi jàngoro ji toll ak fi àdduna si toll ngir ñëpp maanaam moytu na ñu ñëpp war a wattandiku ba nga xam ne ñëpp danañ màggal sa jàmm delluwaat sa jàmm sa dara du leen fa topp loolu bokk na ci lay jiitu ci li ma waroon li ma waroon wax ba ca dolli ko itam biir pénc mi xam ngeen ne écran yi dafa daa bëri loola ko gën a mën a wàññi rek ndax gis nañ ne mbooloo mi dañ ci daa daje di seetaan ba loolu itam dana muy jur gàllankoor kon loolu lépp itam ñu seet ni ñu ko gën a mën a tase rek ci biir quartier yi mooy liggéey euh, di ca dolliwaat itam biir siyaar yi ci biir jumaay loolu itam dañ xam ne aadabu ziyaara dafa am ku jëm si ci kanam Sëriñ Tuubaa mu wóor la ne da ngay ñëw ngir teewlu si ngir lu rëy yëkkati la fi nga jëm itam gënal la fépp da ko fa tëdd moo la gënal lépp mu wóor la ne mi ngi janaw yow kon foofa ku fay tàbbi war nga ànd ak teewlu bu war nga ànd ak mag gu mag ci sa digg sëriñ bi waaye war naa ànd ak ay teggin siyaare rawatina ñun yoonu murit nii ñëpp xamee ci ay teggin kon dugg ci biir jumaa ji di ko boole ak ay yuuxu loolu bokk ci adabu siyaare kon loolu itam. waaw mu xaddamu xidma ñi nga xam ne ñoom la nekk seen loxo nañ ci gën a bàyyi xel ci di soññ ni ñi waaye taalib yi ñëw itam nañ bàyyi xel ci ne jumaa ji di barab bu ñu yuuxoo lu barab bu ñu foyee barab la moo xam ne mooy fi gën a màgg ci ñun mooy fi gën a tedd ci ñun ka fa nekkee gënuñu lépp kon loolu itam war nañ koy bàyyi xel bu baax di ko jeexale nag ci yi nga xam ne soppi nañ ko leen ci màggat gi mooy ku ne xam na ne bari na ay gan yu daan jóge bitim réew ñi ñu leen di ñu leen ci invité ñu ñëw di ànd ak ñun màggal yi ñooñu ñëpp nag ren ngir xam fi waxtu toll moo tax ren jéggal nañ leen ba déwén ak jàmm incha allah euh, waa ambassadeurs yi nga xam ne ambassade ambassadeurs yi ne Sénégal te teewal fi seen réew ñoo ñëpp itam dañ daa ñëw ci bis yi di ko ànd ak ñun ñoo ñëpp itam ngir xam fi waxtu toll ndax. ñun bu fekkee dewuñ ko it ñoom xam nañ nañ koy dawee kon loolu itam ñëpp dañ leen koy jégal ba déwén ak jàmm wooyu falal leen ko rek mu bañ a dis ñun ñun ñi nga xam ne nag li ñu dund suñ duggee sëñ bi jaaral nañ lu ko ëpp ñun moom loolu moom moom moom fañ ci nekk rek mooy fa ci ñëpp nekk kon loolu daal mooy liñ ci doon fàttalewaat rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala